بالله من سمي عليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون جي خيو خيو بيغا خا مني دال نا سونو كاو فاني مو مو مو نيك شوك و بارتيكولير تي بيب دوم سينغالي دي وقتي ترومبر ييب دي جالي ليغا خا مني اي موك سن اي خريط seen am di jàmm ñàkk nañ seen bakken muy bu terrible bu métti lool boo xam ne ñaantuñu yàlla dund ko. Mm-hmm. wane rek ni euh, mbir mi ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye ñu ngi koy jaalee ahlu làmb yëpp rawatina Sénégal gi yëpp di ko di bokk naxar bi di ko partagé ak euh, mbokk victime yëpp di wax ni képp koo xam ne ñàkk nga ci sa bakken rek yàlla na la yàlla xare aljana te mu gëj fi am parce que fan yii yëpp mooy débat du jour te nag waroon nañu permettre tamit ñu defar suñu toogaay euh, gën a defaraat jikko yi ci tali bi gën a defaraat jikko yi ci kër yi gën a defaraat parce que tamit li nekk ci biir kër yi rek moom la gars yi di véhiculer ci tali bi parce que nag Sénégal quoi qu'on dise rek mooy euh, indiscipliné bi bi reñee ci tali bi dafa jéggi dayoo euh, boo yore oto di dawal li nga xam ni am na musiba yu bari yoo xam ne mi ngi dal suñu kaw loo xam ne ñooy sabab bi yàlla nag mooy rey waaye nag euh, ndimbal na ci fekk loxol borom war nañ defaraat suñu toogaay te nag am nañ habitude saa yu jëy yu mel ni amee rek euh, ñu jël ci ay mesures pour quelque temps te loolu c'est absurde te loolu c'est inadmissible waaw mbir moom mu ngi fàttaliku batalo joolaa bi mu amee rek dañu jël ay matuwaay yu mat sëkk ci surcharge ak yooyu mais au bout du temps rek dañ jékki-jékki nekk fañ nekkoon kon book état bi ñu ngi sàkku ci ñoom ñu jël ay matuwaay yu mat sëkk ci tali bi parce que tamit loolu mu ñu permettre sénégalais yi nekk ci jàmm nit ñi ku nekk tegu tegu ci yoon di jaale ñëpp di jaar ñëpp waaw comme liñ fi dajale tey rek euh, gannaaw bu ñu bu suñu président euh, Abass Ndoye euh, addo presque li mu li ma war a wax yëpp wax na ko di nuyu suma dirigeant yi nga xam ne ñoo fi teew muy mel ni euh, Amadou Kadi Diop le coach de l'équipe du Fass di nuyu suma ménager Khalifa Dia di nuyu le secrétaire général di nuyu euh, di nuyu suma encadrement encadreur yi fi nekk yëpp commençant par le président Abbas Ndoye euh, di nuyu Amadou Kati Diop le président di nuyu Moustapha Gueye le directeur technique nekku fi di nuyu Euse Pape Demba nuyu le secrétaire général euh, Bouba le ménager Khalifa et les autres Nous nuyu Mbari nuyu il vient d'arriver nuyu l'ensemble des lutteurs sont présents ak sommes nga xam ne fi di wax ni fi comme ni président waxee rek mooy le renvoi de de de le renvoi du combat contre euh, Ama Baldé mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla jël nañ ko avec avec philosophie Hein, parce que tamit euh, c'est très dur mos nañu daal ci suñu carrière xam nga chama euh, ça me rappelle le combat Tyson dama ko préparé ba mu au bout au bout au bout d' semaine mhm. ma dem sama kër top. yeewu xam ni am na lu muy mettre xam nga mu ma ko def ko lu simple nekk te déchirure musculaire la xam nga moo tax tey li dal sama adversaire dama koy dama koy bokk ak moom ah euh, gënalu ko parce que tey li ma permettre tey ma jël ko sax mooy ñeewantal ko ci situation yi mu nekk vis-à-vis par rapport avec les autres lutteurs parce que euh, toog na lu yàgg li ma dal moo ko dal man toog naa 4 ans ba réew mais cause yi du benn c'est un jeune leader bu bu bu bokk ci làmb ji di toog

yërmande yërmande bi ñuy xoolee Moro bi ñu bokkal ak bay diko xolé Serigne Ndiaye mom la xol bepp bépp mbër boo xam ne bokkuñu sax ak moom parce que sport bok sportif boko ko rek da nga wara am mentalité mentalité de fédérateur mentalité il suffit nga nek sportif rek xol mu sel nga yor parce que sport c'est esprit sain dans un corps sain ko gis ci àddina ko bokkal ak ko bokkalu dang ko war yene yéene lolou loolu permettre tey ma jël Ama Baldé kon tay liko dal tay douleur dama koy partager ak mom malgré que metti na ci man parce que man maa ngi nek ci di ben dynamique de travail bu metti bu intense bo xamné bon ku xam xam ni làmb boo préparer da ngay calculer lepp ci méthode d'entraînement méthode côté yëpp xam nga da ngay ñëw budgétiser li ngay def mais bo démé bu mu dess un mois mu ki na metti mais lu metti ci man ci mom lay gëna metti motax moo euh, ngi koy douleur bi maa ngi koy partager ak mom diko partager ak ak famem diko partager ay équipe di wane rek blessure bi def nañ ci liñ ci war a def parce que on a vu que euh, le CNG a fait contre expertise loolu la ñu doon xaar ci ñoom ba résultat yi génn nga euh, bon moment discal c'est pas quelque chose de facile blessure bu sérieux la parce que boo nee bon moment discal rek ça sollicite les les les les les les disques lombaires d'habitude boo xoo duggee ci internet bi boo xoolee nga xam ne blessure du blessure boo xam ne tey du jour au lendemain day wér il faut des bons techniciens xam ñu mën a faj ko suivre boo déggee sama na on attend notre adversaire parce que xam n'est c'est pas c'est pas une blessure boo xam ne tey mën na mën na mën na ci deux mois xam nga ñu ça n'empêche pas que tey mu toog parce y a des parce que y a des blessures yoo xam ne tey dal sportif bi hein. euh, y a y a y a des sportifs. Il y a des blessures yo xamné mën na y sportif bi mu mu muy def euh, euh, euh, mu mu a toog day def récupération footing mais bon moment discal dañ out sans rien faire pendant un mois après le médecin xol xool renouveler ko si ce n'est pas renouvelable on continue

un un an deux ans trois ans sans lutter bëri benn combat toog loolu boo xoolee lima ma gàllankoor suma maa gën a ci mbër yi qui yi maa ci ay combat loolu nak lima lima lima ma li ma li tax euh, ma ci dynamique bu intense mooy lima may li may toog lu yàgg du ma bëri kon nag maa ngi nekk ci benn lancé boo xam wax dëgg yàlla euh, maa ngi sante yàlla bu baax ci ci ñi nga xam wax l'encadrement bi nga te à chaque fois ñu ngi booster avec les coachs avec les supporters du mu di mu booster envers que niveau extraordinaire Je suis ci xam nga kon ma saison Je euh, suis suma dirigeant je suis ay je suis échangé. échanger moo je ñu pour tout promoteur pour un adversaire bu ñëwee xam actuellement ni sant yalla un combat de deux mois un combat de un mois actuellement ni ni.

di nuyu équipe Fass di nuyu ñëpp seen présence nag am na importance trop di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm di question parce que nous c'est des adversaires président wax na la ko léegi Fass une écurie bi nga xam seul contre tous ñun li ñu am man li am ci adversaires boo ko tegoon fi ëpp na dix exclu mais nous avons des potentiels adversaires yoo xam ne tey moom la làmb soxla xam nga mooy comme combat comme ni ko président waxee combat jànq ay combat grand contre petit mais exclure une ñu est-ce non choix. préférence. je suis amateur de ah, amateur je président je ah, am na ah, ci parce que moi, mag ak président président bu dee mooy taamu man booy ñang lay mais man aw ci choix man. Ah, en tout cas parce que normal sportif la. mais Lac de Guiers tamit bëgg na bëri yow parce que démb def na benn déclaration. Hmm? non loolu da nga koy laaj président man du wax man man du wax man du wax ci loolu loolu da nga koy laaj président. Ah. non loolu da nga koy laaj président. loolu moom non yaa ci wax yàgg Lac de numéro war ngeen mën a parce que combat non aw ma aw problème ci loolu mais ba xamoo ñun ñun ñun ñun ñun ñun. lu lu man man man man man samay promoteur man man samay supporter ak suma staff ñoy décider tay ku doon soxla combat malgré que âge mam ci lamb je suis mature responsable mais tay combat bu ma doon proposer ka may proposer ci jëm ji la koy yabal mu discuter ak moom kon ça veut dire moom préférence am wax na ko. ànd nga ci wa wala waa Jaraaf lu ñu sóoraloon waa Pikine fa mu njëkk. non xam nga làmb Pikine nak euh, face bokku nak ben lamb en toute sincérité lamb Pikine ak face te nag wax dëgg yalla ñu bari mbër yu bari bëri na ak ñoom man mbër yi ma bëriwul ba bëriwul mais combat jank gaay dañ ko bëgg combat bu musul am dañ ko bëgg mais nak exclure ma ben pour ben ben mbeur en toute sincérité té boy ñaan nak li tax bërëg moom mu neex moy dañu bokk tank bu ñu teg wa waaw loolu daf cee neex wa lool la rek wa mais lu leen wa wa lool motax wa mais lool la lool motax mais mais ki jé loolu ko do la tax chaque échange da bi débat bi ko focaliser ci ay ñëw ñëw ñëw fi pour di wax benn bër wax dëgg yàlla la diggee Guiers numéro 2 bàyyi ko foofu mu toog booy wax non booy wax ci mbër yi waxal mbër yi ah, non dama la boo waxal ci mbër yi nga xam ne tey moom la Sénégal bëgg ma bëril waaw <laughs> ah, lu leer laa la wax waxal la man man may wax nii yow laa jàkkaarloo dama na la sooy wax ci mbër yi ma war a bëreel waxal nag mbër yi nga xam ne Sénégal moom ñoom la bëgg ma bëreel c'est clair li ma wax ok on change de sujet ah. waaw jégalu ma la mbër yi bëri ñu bëri yow mi sax Lamine boo bëggee ñu bëri amul problème malgré doo mbër ah, ah ñëwal.

làmb dafa war a évoluer Siteu war na bëri gars yi war nañ mën a bëri man war naa war a mën a bëri Siteu Siteu war naa bëri Boy Niang Siteu war naa bëri Modou Lo mais c'est comme ça parce que c'est un jeune boo xam ne tey mi ngi mi ngi mi def ay exploit mi am na public tey am na xoromu làmb am na lii lépp lu mbër di am ci làmb am na ko loolu moom c'est c'est à saluer hein? eh mon frère noo def waay non taamu mu ba Niang muy bàyyi loolu dama ne amateur laay wax man amuma mbër mooy taam man tollu ma ci laamu di taamu ay mbër. ay roi ak paateek duudu man je nekk ci dynamique de travail boo xam ne su ma sañoon bëri ci ñaari weer wala weer xaaruma benn mbër mbër buñ ma jox sama promoteur bu bëgg a bëri ma bëril la soo ma wooyee dirigeant bii le président ngay waxal. su dee ma jógal suba ma jog aw ma choix ci loolu man Gris li ma def ci làmb tool bu ma tolloo di def ay choix ci mbër dañ ma war a dama war a génn làmb dem defi leneen aw ma choix ci benn mbër mbër bu ma bëral ba aw ma choix yow ba maa nekk ci dynamique bu ma permettre tey suba ma bëre te dynamique boobu bëgguma mu yàqu parce que tamit combat boo xam weer a ci des mu yàqu suba sax ñun dans dans un mois ou dans deux mois mu bëre aw ma ci xaar ma yàlla taamu ma benn mbër mais nag les luttes les promoteurs les promoteurs et les euh, amateurs dañ am choix ci ay mbër yoo xam ne tey ñaari diw ak diw bu ñu bëree li li amateur bëgg gis ci làmb ñaar ñu ngi si ñaari mbër yi loolu ko loolu mënuñu ko loolu mënuñu ko du ay njaay joxo jóob dafa am ay mbër yaa dafa dafa am ay lutteurs yoo xam ne mënul loo leen boole te doo bëgg li bëgg ci làmb te doo ko gis am na mbër yoo xam ne nag boo leen boole ci làmb li nga bëgg ci làmb doo ko gis xaw ma de loolu ah, c'est à vous de de de de juger. très

c'est pas un déchirure musculaire c'est différent parce que loolu dafa solliciter les disques lombaires ku xam ku xam nit ni ndigg ko yor ndigg mooy doomu aadama te loolu c'est sérieux bu ñu ko CNG na xaatamee indil ñu ko li ñuy wax la ñuy gëm lu ñu gëm ni Ama Baldé euh, bi nga xam ne tey wax dëgg yàlla toog na quatre ans bëriwul adversaire am gaañu tey ma jël ko bëreeg moom mu toog ba combat de un mois ñuy ma dégg façon xeetu wax bu wax bu ne ñooñu wax dëgg yàlla wax yooyu ñuy wax ñoom la engagé seen xel moo toll foofu mais man mi nga xam ne Ama Baldé man gëm naa ne dafa gaañu te bis bu ko yàlla mayee wér dana ñëw bëre parce que bëre mooy métier attention mbër bu bëriwul amoo xaalis day na man loolu laa ko man man loolu laa ko non lol, ça n'engage que lui hein. pas mes oignons Hein. n'est pas pas affaire mais ce qui est sûr et certain c'est que Lo dépose le certificat de guérison parce que vous verrez, il mais jusqu'à présent je combat pour combat ça dépend le certificat guérison de sûr et certain que les blessure que

en biñu gënal moy Boy benen bi ci top modlo déposé na certificat de de guérison su fekkee né que mënul xaar Ama Baldé dañu ñëw gri Gris xaar Ama Baldé Gris tam xaar Ama Baldé Ama Baldé yalla na wër ci lu gaaw ci lu yom donc ñun liñu wax lérna na xaaruñu kii njëkk bëree kële wala kële njëkk bëree kële suñu leader dañ ko téggone ay conditions très dures d'entraînement pour mu nekk ci benn dynamique dynamique bobu lañu bëgg conserver donc lañu bëgg mu bëree c'est tout c'est clair c'est aussi clair que ça tey ku ñu mën jot ñu xol xool ne que mooy lutteur bi ñu proposer pour ñu bërek mom dañ koy jël amuñu ci xajj ak sét et que ñun écurie Fass dégg légui euh ku wax Siteu pourquoi pas Abou Siteu dafa prouver def ay maanaam ci ci lamb tay ñun écurie Fass suñu politique duñu bañal ben xalé bu prouver dajé ak suñu leader xam nga pourquoi dañu am ay xalé yu nekk ci ginnaw yu ñu yàkkamti ñu jot ci mag ñi ah. parce que dañu am yaakaar ne buñu ñu ci mag ñi légui ñoo ñu abal ñu dañu am Serigne Ndiaye am Forza am modo am Lac ñu yakamti mag ni ñeme leen ba jox sens kon bu dañ lay jox sens ñu suñu politique lool la way non lool moy li Giri wax cest que xam nga ma ko fa xam nga wala dama ko parce que amateur là, avant d'être président de l'équipe de face, man ci lamb lay dundu lamb yeb la xam lamb non l'amateur c'est l'amateur qui parle qui te dit que lamb bima gënal man moy bi neex amateur yi la japp ne def sondage 70 pour wala 80 des amateurs te diront Gris Boy Niang combat bu neex la moom la ñëpp comme ni ñu bëggee woon Ama Baldé Pikine Fass dafa nekk benn derby bu bu bu bu jiitu ci lamb avant face séeréer yi la won mais après dafa toxu dem euh, Pikine face mu nek ay combat yu neex yo xamné ne voilà day am tension am yëpp ñu bëri ko ci jàmm ak salam donc lolu choix wu amateur bi la c'est pas le président parce que man duma dicter dafa am staff technique Kati jobé la là Moustapha Gueye est là ils vont choisir le comme mooy adversaire mais dama le choix wu amateur bi man président amateur c'est Boy Niang combat bu neex la ngir tegal la ci ne ñaari pied droit lañu loolu kay combat bu àdduna tukki. mais est-ce que Boy Niang mën na am opportunité bëri un combat royal ba noppi di ne fat marche arrière du bëri. non xam nga combat royal mom, man man en tant que président bi pa laay wax combat royal c'est un débat bu mu dul bokk man du ci wax parce que pour man y a pas de royal dans cette arène bi hein? daanente la oui à mon avis à mon humble avis non non non amul amul sax.

dañ ko fi def nii bàyyi ko fi bay bayal ko fi ba mu sax fi mais man à mon humble avis en tant je n'ai rien contre Modou Lo c'est un garçon que j'apprécie sérieux na am na fulla ci lu muy def fexe na ba jot ci mais loolu dañ ko fi bàyyi roi roi mais roi ci naka bala Gaye dal la ñaari yoon roi am nga noo nekkee roi am Balla Gaye bu dee mooy roi bu Eumeu Sène ñëwee nu muy nekkee roi fan lay nekkee roi tey boo nee Bombardier mooy roi bu Gris ñëwee nu muy nekkee roi attends dañ ko fi bay bayal ñun nekk ñu si dynamique roi sport la ñu nekk nos lutteurs doivent compétir si nga tey dirigeants yi nekk ci yenn écuries yi dañu war a am beneen attitude ak beneen gis-gis pour pousser nos jeunes lutteurs là à être productifs mooy ñu seen bëre bii ñuy bëre amal leen njëriñ mooy ñu bañ di toog lu yàgg bëriwuñu ñu fexe am lamb sport yàggul yàlla du maye dafay abale xale yi dañ leen war a pousser à ce que ñuy régulier di entraîner à ce que ñu fexe ba benn lutteuru écurie bu nekk am possibilité di bëre deux fois ou trois fois dans l'année mais top ci ay couronne ak ay nangam couronne yi amul sens métier métier journaliste su xëyee day liggéey mécanicien bi dem ci garage am bureaucrate ba dem ci bureau mbër ba dafa wara a bëre ñetti yoon ci année bi wala ñeenti yoon mu amal leen njëriñ ñu mun ci faj seen haajo aajo ci nekk ay homme tekki ëllëg dara am réussite sociale donc on parle pas de couronne on parle de d'activité activité seen activité la dañu war a bëre saa su nekk loolu la ñu gëm ñun donc ñun basé wuñ ci ay couronne wutuñu couronne jéemuñu couronne couronne mooy lan Tapha Gueye bëri fi daan ñëpp xanaa kon bu ñuy wax roi mooy roi Manga 2 bëri fi daan ñëpp kan moom mooy nekk roi ci Tapha bi daan ñëpp kan la daanu daan ñi fi fekkoon ñëpp kan mooy roi donc loolu dañ ko fi bàyyi rek comme mënuñu ko dindi tey man su ma doon journaliste dinaa ubbi ay enquêtes yu xóot ci naka la ñuy dindee tur roi bi ñuy wax fii ci làmb xool fan la ne xool beneen critère bu ñuy teg pour def ko parce que critère bo da roi ah à mon avis je n'ai rien contre les lutteurs moi j'apprécie tous les lutteurs ak donc mais couronne roi dal du sama gis-gis man. Ah, waaw sommes ah, di di avant on est là. non bon di la ak tay position. voilà donc euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ngi décision bi demb lañ ko jot ci CNG parce que bu ñu won wax tank CNG yónnee wuñu document demb lañ ko yónnee ñun biñu ñu tay jot ñom jot nañ suñu lettre bu len wan ne dañoo bëgg suñu mbër dem jëli benen combat lettre baa ni tontu nañ ñu euh, defal ñu euh, réception ñi ngi xaar ñu confirmer ñi ko donc kon tey lañ tay lañ jël décision ubbil nañ ko à partir de tay ku ñew ñu discuter ak yow suñu suñu mbër bëré donc ñi ngi ñi ngi profité aussi ci tour écrit face di jaale réew mi yëpp euh, ndogal bi nga xam ne si suñu kaw la dal ah suñu mbokk yi fi jógee yàlla suñu borom xaare leen ci àjjana yu kawe ya lii yàlla na fi gëj ah yàlla teeru leen ak yërmandeem ah naqaru ñëpp la méttitu ñëpp la donc ñi ngi koy bokk ak Sénégal yëpp ah di ñaan mu gëj fii ci barke yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam euh, di di masawu le promoteur ah gannaaw

kon maa ngi koy gannaaw ba mu euh, masawoo suma adversaire moom Ibrahima Diop le promoteur maa ngi ko ci masawu te xam naa ne mbir mi jël na ko avec philosophie xam nga di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni rek euh, comme ni ñu ko waxee ni ñu ko ubbee rek ñuy jaalewaat suñu mbokk yi xam ni terrible accident bi nga xam ne dafa dal suñu kaw métti lool nag parce que nag wax dëgg yàlla euh, boo xoolee les images di nga xam ne lu métti waaw waaw ñu koy jaale ñëpp di ko jaale sénégalais yëpp di wax ci turu mbër yëpp.

loolu équipe Fass ci kanam ci lay dox ci lay wax te boolewul lenn lenn ak wax kon boog yàlla na ko yàlla defal jàmm sàmm ko aar ko yiir ko ba lépp loo xam ne bëgg nga ko ci bëgg na ko ci équipe Fass muy avancement yàlla na ko yàlla defal li nuyu nag suñu suñu suñu suñu suñu papa suñu nijaay Amadou Kati jóob loo teel ñëw teel ñëw fi nga koy fekk engagé xam nga apare pare boolewul lenn ak wax xam nga mais nag bon xam nga moom fa mu fa mu bokk la

xam nga di sama ménager. Diop waaw Diop Diop Diop Diop neen ma nuyu ko Diop. Diop waaw Diop Diop Diop Diop le premier supporter de ah. ñoom Serigne Ndiaye xam nga ah. non su ma pàcc loolu li nga ma teg sama tànk gars yi bàyyi ma teggi tànk ah. yow boo gisee gars yi di xatraay teggi tànk non loolu loolu loolu loolu war a ma a baxal affaire sax ah. non teggi tànk weesu ko nga boo gisee boo gisee gars yi yëpp di xatraay parce nga xam ni wax dëgg yàlla maa ngi daj coono yu méttee métti te choono yooyu nag dafa war a am fruit waaw un un sportif qui compétit pas dafay dafa lay indil gàllankoor parce que tey euh, planification ci combat bokkul ak tey boo planifié wu moo tax ñu nekk ci dynamique boobu di leen ziar nag ah la presse ah. di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm di wax ne rek yàlla na Sénégal am jàmm. merci beaucoup jërëjëf.